moom daw na terrain bi moom ñaar fukki at ak juróom-ñeent la am amul dara Sénégal tabaxu fi dara Ousmane Tounkara day jaayee oto ah. amul dara lu mu xalaatal ndaw yi lu dul génn leen dee leen aucun projet axana ton axana ton amul fi dara jabaram ak doomam ak lépp jël na leen yóbbu mi ngi Europe toog tabaxu fi dara Mollah Morgun bañ na ko ba amul jabar amul doom maanaam moom yara dal la xam nga alkande weesuwut loolu Amo jabar Amo Dom. naan na nit ñi baye sen jabar sen Dom nous sommes en guerre en guerre pour qui et contre qui donc ñooñu ñep kenn def fi dara kenn am fi dara dàmbooj li mu fi tabax dara mais bo jëlee jambar yu melni ñom ñoom Sadio Mané ñooñu buñ ñu Sénégal au moins ñu war lay mëna déglu parce que def nañ fi dara ñooñu bu réew mi tàkkee non ci ñom parce que def nañ fi dara ñu melni ñom gol gi dem nañ jaay seen maanaam daan seen doole ci anam bu leen nañ am seeni alal ñëw investir dëkk bañ dëkkoon ka fa feebaroon amul fu mu fajoo ma ngay faju ka bëggoon jàngi amul fu mu jàngi jee ña ngay jàngi def nañ seen réew dara ñooñu seeni doomi réew lañu Youssou Ndour pareil même Wally Ballago mi ngeen di saaga bis bu nekk au moins il fait quelque chose pour son pays yëngu ma nag lu mu investir mais au moins mi ngi dimbali ay dit Sénégal mais yéen dimbaliwu leen kenn su ngeen cotiser xaalis mooy dafa leen toog ca mën a dof su ngeen cotiser xaalis mooy taal leen maanaam dañuy cotiser pour ngeen yàq mais cotiser wuñ pour ngeen defar kuñ ci jox alal googu nag jël ko nga defar sa avenir bopp wax naa leen ko barki démb te Pastef duñ ko weddi waa kër Ousmane Sonko duñ ko weddi ne doomam suway bu demoon na signé ji maanaam ci championnat Portugal bis biñ jàppee bàyyam waroon dem tukki c'est une information béton boo xam man am naa ko peut-être nag ñu vérifier ko ñàkk nekk mais fekk dindiwuñ ko moom information bu leer la ko midi wax naa nijaay ja ndeysaan benn jabar la amoon avec l'avènement de Pastef ba Kopar Express yokk na sa ñaar naa leen ba taa ba caatam yor na 4-4 boo xam ni yàngoo la ciy def ana Khadija Mahécor ma nga Canada mook doomam di renouveler passeport u Canada am maanaam nationalité canadienne yéen nationalité sénégalaise ngeen yor réew bu tàkkee yéen na taal yéen la tàkkal parce que yéen a am avenir kan mooy jàng ci université bi Macky Sall Ousmane Sonko Sadikh Top jàngewuñ fi jàngewuñ ci université yi kan mooy jël bis yi Ousmane Sonko Macky Sall Sadikh Top déedéet yéen yéenay jël bis yi yéen a voyage yéen jël TER bi yéen a jël BRT bi ngeen bëgg koo taal ñu gëmloo leen ni ñoom bu ñëwee defar ko taal ko ñun bu ñëwé ñom manam bu fekkon falu nanu parce que duñ falooti inshallah allahu rabbi mais bu nekké ñoom falu nañu ñu défarat ko mais digënté biñuy falo faloog bi ñu koy defaraat yéen lu ngeen di def qu'est-ce que vous allez faire manam buñ ñu leen tàlloo université ngeen tal ko c'est bon ki leen ko talo? ëllëg ci biir mu ñëw nekk président avant muy de avant mu leen defaral fu ngeen di jàngee yeen lu ngeen di def C'est milliers de bacheliers yi war a génn fu ñuy donc c'est des questions yo xamni war ngeen ko xalaat. alal gi ñuy dajale ñoom ñu ne bitim réew dinañ ko yónnee daan dem leen ngeen songu waa kër APR te la plupart nag ñi ñuy yónni ñuy songu ku ci am problème guddi feebar dal la rak amoo foo jëm ku ci yàlla bañ ba nga dem fëgg waa kër Pastef moom am nga problème parce que la nga yor lañuy ñuy nangu maanaam boo fi indee junni di wut ordonnance su vingt mille junni ba la ñuy nangu faf naan la noo un don de soi pour la patrie du ñu defal askan bi dara. duñ leen yéene wuñ leen dara tous xool leen maire yi ñor xool leen maire yi bëgg demoo ñaa maa ngi déglu waa Guédiawaye concernant Ahmed Aïdara tabaxoo dara naan damay jël li fi nekk Pikine Ouest fii moom maire ba sax man gisatuma ko fi xaw ma daa daw xaw ma xam nga taal taal bis moom day am effet xaw ma daa daw xaw ma mais l'essentiel mooy man gëj naa ko gis boobu wala bu fi ñëw guddi fii ñëw paratir sax am na ñu ma ne famille am dem nañ Kër Massar man gëstuwuma <laughs> xeexu tàppeta bon mais l'essentiel mooy en tout cas man gisatuma ko gisatuma oto gisatuma dara mais moi je suis républicain moi je suis un républicain man moom ba ma porté plainte laa ci pare l'essentiel daal mooy Pikine Ouest maire ba moom wax dëgg yàlla gëj naa ko gis am na sax ay agent yu ma ne boobu ba léegi fayeeku wuñ te maire yëpp ngi fayeeku ma ne leen ah man daal du ma wax lu ma leerul en tout cas nee nañ ma daal maire ba moom njabootam ñëpp yóbbu na leen moom voilà donc oto it man gëj naa ko gis waaye maire boo xam ni ba nga faloo ba léegi waxu piscine nga fiy wax waxu mbon xol leen oustaz bi génn barki dem naan day tas l'islam naan tas l'islam ba yomb tas Pastef ñu ko la fofu nga naan noo damaa juum Pastef pas-pas la dem jëli waxu Antoine Diome moko inspiré bu ndono doon wax assemblée nationale mu génn naan day dóor de naan Pastef waxu pas-pas la waxu ñoo lool par nga ne parti Pastef tas ko parti ba nga wax parti Pastef tas ko voilà donc euh, loolu du am solo lo xamni ni nañ ko waxtane